ñi way mer Sonko na mu ne la les supporters li may wane ni Sonko Sonko dafa xew les supporters de l'ASC Médina Fass les supporters de l'ASC Salam 3 et les supporters de tous les ASC ñu ngi booloo di way Sonko na mu ne la tous les stades ñu ngi way Sonko na mu ne la ça montre tout simplement que ni ñoom ñoo bokk liñ bëgg ñoom ñoo bokk Sénégal bi nga xamante ne bëgg nañ Sénégal Sénégal di ñaan yàlla jàmm yàgg fi di ñaan yàlla jàmm yàgg si loolu la am euh,